bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illa maa callamtanaa innaka anta alcalimu alhakim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 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy bàyyi xel ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bu mag bi di Mohamed Bachir Cissé mbokk yi yenn jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu bokk sant bur yàlla subhaanahu wa mi ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm moo ne moo ñu ne ñaan leen ma ma may leen tiis leen ma seeni soxla ma faj ko wax leen ma seen bëgg-bëgg ma taxawee ko ñu di ko ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla sàmm sàmm suñu réew nasaluka allahumma aminna fi awtaanina waslih aimmatana wa wulaata umuurina yàlla ñu yàlla may sécurité suñu biir réew yàlla ñu yàlla yéwénalal suñu njiitu réew ak suñu képp ku méngoo suñu mbiru diine yan na ko yàlla xàllili yoon yan na yàlla leeral xelam ak xolam mu wara mën a jëmale askan bi ci xeetu jàmm yoo xamante ne yàlla moo ko koy baaxee yàlla moo koy dottil ci xolam mook ñamu àndal ci doxalinu réew mi ñu di ko ne allahuma ihfad bilaadana min al fitan ma dahara minha wa ma batan yal yàlla sàmm suñu réew ci mboolem fitna yu nëbbu ak mboolem fitna yu feeñ yàlla bu ci lenn antu yàlla bu ci dara ant yal na lépp naax saay buñ ne sax yan na tàbbi géej waaye yal na lépp naax saay fitna bu nëbb yal na ko yàlla naax saayal fitna yu feeñ yan na ko yàlla naasaayal allahuma ihfad bilaadana min al fitan maa dahara minha wa maa batan yan na yàlla sàmm suñu réew ci mboolem fitna yu nëbb ak mboolem fitna yu feeñ yan na yàlla sàmm suñu réew ci fitna yooyu allahuma aminna fi awtaanina yan na yàlla may ñu yan nañu yàlla may sécurité si suñu biir réew waslih aimatana wa wulata umurina yan na yàlla yéwénalu doxalinu suñu njiitu réew ak gouvernement bi ak képp ku méngoo mbiru askan bi yan na yàlla yéwénal seen yoon seen trajectoire ak seen fu ñu bëgg a yóbbu réew mi yan na ko yàlla leeral yan leen yàlla kattanal yiw yan leen yàlla kattanal jàmm yal na buur yàlla accompagner leen lépp loo xamante ne mooy lay yéwénal askan bi rawatina ñu dëkkee réew mi amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi leen doon waxtaanal ni rabitatu imma ligue des imam il prédicateur ñun doon ñaax askan bi ngir ñu war a mën a dajale suñu doole ci xeetu matériel ya war a dem côté ñan ndox lor ñan ndox bi lor seeni dëkkuwaay kilifa yi joxe ci ndigal ñu nit ñu di leen ko baaxee ci waxukaay ba ñu yàlla nattoo ñu féete fa képp ku dégg kàddu gi nag ah kilifa yi dañ moo baamu rek la ñu yonent bi bàyyee salaa salaam ay xeetu raccourci yoo xamante ne jullit bi war na si fàggoo yiw waaye ay xeetu raccourci yoo xamante ne boo ko jëfee keroog bés pénc ngay xam njëriñam te moo ne buñ la ko fayee dinga nga rëcc lu tuuti loolu nga def ba tax na tu ba yàlla yónni salaa sallam mu ne ko yónni bi ma la yónni du dara lu dul nga doon yërmande ñeel mboole mbindaafoo ni yonentu bu leeral na message ba ko yàlla jox partagé na ko ci askan bi lañu bëgg a waxtaanee nii bokk na ci message yum ñu fi bàyyee ngir jullit bi war a mën a dimbali mbokk jullitam ci taxawaay boo xamante ne mooy bu soxla waaye ña nekk côté Bakel ña nekk côté Matam jëm ba Saint-Louis tund boobu ndox bi jële ña fa dëkk te tey ji ñu soxla ndimbal ba war a jóge ko ci seen mbokk jullit ñi ak seen mbokku citoyen sénégalais ñu ngi koy xaar ci bunt bu ne kon ngir ñu joxe jëmale ko ci ka soxla ndimbal ca waxtu bam ko soxlaa nga fekk ko ci yiw ba fa nekk moom la ñu yonent bi baaxee ni sallallahu alayhi wa sallam moo ne sahaabi bu ñu naan oqbata bun amir radiallahu anhu moo ñu wax ne naka yonent bi sallallahu sallam moo ñu baaxee ci maanaa xadis mu ne ñu kulli mri'in fi dilli sadaqatihi hatta yuqda bayna annaas xadisun saxix axrajahu albani fi saxixul jaamia mbokk yi uqbata bun amir radiallahu anhu moo ne yenent bi sallallahu alayhi ñu baaxee ne ñu kullu mri'in bépp nit kullu mri'in képp ku nga xamante ne nit nga kullu mri'in bépp góor kullu mri'in bépp jigéen kullu mri'in yonent bi nee na képp ku nekk ci yéen keroog bés am na xew-xew bu mag bay xew xew-xew boobu noonu nag ku ci bëgg bokk yàllaa ngi ni ubbi na bunt boo xamante ne sa ñaq bu ci tàbbee sa wërsëg bu ci tàbbee du ñàkk nga bokk ci xew-xew boobu di xew keroog bés pénc ba tax na yàlla créel nañu buntu xewal woo xamante ne warees nañ see war a mën a jëfandikoo wala ñu jafandu si wala ñu dugal ci suñu ñàq wala suñu wërsëg ngir buur yàlla baaxee ñu la yenent bi joxoñ ci xadis bi keroog bés pénc ñu bokk ci ñooñee ñan ndox bi jëlee seeni béréb mu ñu doon suñu mbokku sénégalais ñu bokk mennum réew tey ji ñu toll ci sàkku ndimbal képp ku joxe lala yàlla wërsëgal ngir xitaliku kaay keroog ngay xam njëriñ ba la yonent bi joxoñ ci xadis bi sallallahu alayhi moo tax mu ne ku limri in bépp góor ku limri in bépp jigéen ku in bépp ndaw ku in kenn ku nekk ci yéen yowmal qiyaama fii dilli sadaqatihi ci keru kem sarax bam doon saraxe ca lañ koy keral xatta yuqudaa bayna naas bi keroog yàlla di at jaami mbokk yi yàlla na jaami yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di rasul Mustapha sallallahu alayhi moo ñu baaxee xadis bu leer xadis bu neex a dégg xadis bu neex a comprendre nee képp koo xamante yaa ngi fii ci dundu àddina bi fii di saraxe di dimbali ki nga tane di taxawee ku soxla ndimbal di taxawee ku loru ci xeetu loraange nga nekk ci witam massa ko nga nekk ci witam di ko massaw nga nekk ci witam di ko dimbali di ko accompagner ci ngelaw bu gàlla góose ba ñëw tiim ko nga taxawee ko ci climat bu guus ba muy dund nga ñëw taxawee ko ci guddi bu bër setagul yonent bi nee na képp ku taxawee nii ki soxla képp ku taxawee taxawaay bi mel ni jëmmale ko ki soxla ndimbal képp kuy jël alalam di ko saraxe di ko maye di si dimbali ki nga tane yonent bi nee na képp ku taxawee taxawaay fii ah taxawaay bi noobul na de waaye métti na nga di ko jëf fii ci àddina lu métti la nga jël sa yëri xañ sa bopp naan danga kay yóbbul ña ndox bi loru ña ndox bi génnee seen dëkkuwaay xamoo leen xamuñu la waaye bokk bi ngeen bokk territoire ba ñu naan Sénégal bokk bi ngeen bokk diine ba ñu naan islaam yonent bi keroog bés pénc kem sarax ba nga doon saraxe fii ci àddina kemt lay ker googu lañ lay keral allahu akbar keroog bés na jant bi di mel yàlla rekk ko xam yonentu bi nettalil nañ ko sallallahu alayhi wa sallam keroog kenn ku nekk doo tal kenn ku dul sa bopp di texe wala doo texe ah keroog beneen bés la ci bésu àddina moo tax ñu tuddee ko yawmal qiyaama yawmal qiyaama mooy bésu taxawaay bi waaw moo tax yonent bi nee nañu sala sallam kulli mri'in képp ku nekk ci yéen fii dilli sadaqatihi keroog bés pénc ci renu keppaaru sarax ba doon saraxe lañ koy keral danga bugg a ker keroog bés pénc na am li nga waajalal sa bopp yóbbu ko masjidu nuur walla nga yóbbu ko jàkk Malick si ba nekk avenir Malick Sy du ñàkk wala nga xool nooy defee sa kemtalaay kattan ba sa loxo àgg ci ña ndox bi lor seeni dëkkuwaay ci côté Saint-Louis ñu jot sa ndimbal moo xam yëg nga ko moo xam yëgoo ko yow defar effort jébbal la nga leen yéene fañ ko war a jébbal bu demee bu demut nu munti mel yow sa jaan wàcc na léegi responsable bi des na ci diggante ña ko jox ak ña ko war a yóbbu yow sa yéene bi mat na waaye rafet njort mën naa am ne daal lépp lu waaye yóbbu ci néegu yàlla yooyu ngir ñuy yóbbante ko mbokk yooyu loru dinañ si jot yonent bi nee nañu kulli mri'in kenn ku nekk ci yenn fii dilli sadaqatihi keroog bés penc dinañ ko keral ci kemtalaayu sarax ba mu doon saraxe fii ci àddina xataa yuqudaa bayna naas ba keroog yàlla di atti nit ñi ndegem kenn xamul kañ la yàlla di atte nit ñi ndegem kenn xamul kañ la atte bi di jib kon ndegem atte bi mën naa yàgg comme mën naa gaaw ah atte bi nu munti mel daal la wér te wóor mooy yow géemal a góor lu astuut bala yàlla wërsëgal koo tane nanka ci dimbali nga xamante ne bu ko yàlla nangoo bañ la keral ci sa kemtalay kàttan ba nga doon saraxe yow dootoo yàkkamti atte bi jib wala mu bañ a gaaw ndax yaa ci sa ker goo xamante ne yàlla moo la keral ci kemtalay sarax bi nga doon saraxe te lii benn buntu la la ñu yàlla gël ñun askanu Sénégal mu natoo ñee loraange beneen ndox ba lor seen dëkkuwaay mu ngi xool ba xam ña woomle dinañ fa dugal seeni loxo wala dañ leen di seetaan waaye nag gannaaw bu ñu amee kilifa yu mel ni ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal rabitatul aimma gannaaw bu ñu amee kilifa yi ni mel imaam Daam Njaay xabisahullah waraahu jiite ko ak yeneen kuréelu diine ñu yëkkati seen baat ngir ñu taxawee mbokk yooyu foofu yal na leen yàlla yàggal suñu kanam yal na leen yàlla fay ci nasiha bi amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla ngi fàttaleeku fan yu néew ci ginnaaw ñu ngi doon waxtaan ak yéen lenn ci wote député ya nga xamante ne mu ngi dégmal suñu kanam di ñëw waaye nag alquran junjul ñu lenn ci député di peuple ba nga xamante ni daa ñëw def intervention diggante peuple beeg yonent ya leen yàlla yebal su ko defee mu am mal intention wala mal entendement ba jaar seen diggante ba peuple bi jëflanteeg député di peuple boobu ñu daal di ko faagaagal ginnaaw ci la ko yàlla telere su ko defee ñu di bàyyiloo xel askan beeg seen député yi ñu fal waaye ñuy bàyyiloo xel député yi ñu fal ak askan baleen leen fal ko defee ñu référé wu ci constitution ba ñu yàlla wàccal ci kaw suuf si donte réew mi du ko doxee cent pour cent ndax réew laïc la su ko defee waaye ña fa doon ña tënk ci diini islaam nañu bàyyi xel la nga xamante ne mooy doxalinu islaam ci la yàlla dénk mooy doxalin boo xamante ne même ku du jullit sax war na si war a mën a xaj ndax yeneen bi salaa sallam dëkkoon nag ak ay ahlul kitaab ca madinatul munawara dëkkoon na ak ay juif ci madina waaw su ko defee doxalin boobu moom la ñuy séntu lenn suñu député yi nga xamante ne ñu ngi leen fas yéene tàbb ci pencum ndaw réew mi keroog ñu ngi leen doon waxtaanal ne député de peuple boobu mooy ki ñëw doon def intervention diggante yenentu yooyu ak peuple bi mu ne leen njeexantalu aaya bi lu tee ma war a mën a bañ a jaamu yàlla ma nga xamante ne mooy que ma bind te ci moom lay dellu député du peuple bi ba léegi mu ne leen ci aaya 22 a attaxidu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bi durrin laa tugni anni shafaatuhum cheyan wala yunqidun député du peuple bi ne ataxidu moo ne da ngeen di nangu da di jàpp wala da ngeen defe ne da nekk fii di jaamu min dunillahi di jamu leneen lu dut yàlla moo ne da leneen mu doon seen yàlla mi dut yàlla mi leen bind man kat la ma xam mooy in yuridni rahmaanu bi durrin tikku bi may tikku ni wala xoqatal bi ngeen may xoqatal walla menace ba ngeen di jëmale sama jëmm ji ah bàyyiwuma ko xel te faalewuma ko la ma bàyyi xel faale ko mooy in yuridni rahmaanu bi durrin ndegem yàlla mi yore xéewalu àddina bu ndamee ci man loraange laa tuxni anni shafaatuhum shay'an wala yunqizun du ngeen mën a pexe du ngeen mën a def pexe ba musal ma ci la yàlla nama ci ma jëmm ji li mu namm moo xam la may lor la moo xam la may njariñ la munu leen koo fegal munu leen koo ñoddil munu leen koo bañ a tee mu agsi te tamit munu leen def benn intervention ci lenn lu te ma mun a mucc la yàlla namm ci man xeetu loraange ba mu namm ci man wala xeetu njariñ bi mu namm ci man te yenn munu leen ma tere exister ci leen munu leen fexe munu leen def seen débat déeb munu leen andi seeni sistem ci dara la may tere doon la ma nekk waaye nag munu leen maa bañ a tere ma nekk ci la yàlla namm ci man waaw mu ne su boobaa nag bu ma leen toppee ci li ngeen nekk haa inni idan la fi dalalin mubin waaw kon su bu ma leen toppee ci li ngeen nekkee bu ma leen toppee ci la ngeen nekkee di ko dund kon su boobaa dinaa bokk ci ñu sanku ndax yéen xeet bi ma nekk yenn yéen xeet bu sanku ngeen gis ngeen mbokk yi ci njëlbeenu aaya bi yonent yi dañu ne seen xeet bi bal antum qawmun musrifuun yéen da dangeen nekk xeet bi nga xamante ne nekk kàccoor ak bandi moo leen génnal yéen da ngeen génn topp député de peuple bi tamit bu mu ñëwee mu am discours bu mu leen porteel mu àgg ak yéen mu àgg ak xeet bi bam na leen bu ma leen toppee ci la ngeen nekkee kon man mi dina bokk ci ñu sànku ñi ndax yéen dangeen ngeen ba pare yéen dangeen ngeen réer ba pare yonent yi bu yàlla yónni ci yéen ñuy ñaar ñu di leen woo ci leeru yàlla jëlee leen ci lëndëmaa yu bokkaale ngeen tekku leen ngeen bañ leen faale yàlla yónni ku leen ñetteel ngeen doyadal ko ngeen bañ leen faale député peuple bi ñëw ka nga xamante ne mooy député bi mu ñëw di leen waxal ngeen bañ koo faale ngeen di ko tëkk moomit ngir mu adoore ci seen système bi man kat bu ma bokkee ak yéen ci benn doxalin te yàlla xamal ma lam leen xamalul kon dinaa bokk ci ñu sanku moo ne leen man duma leen topp ci sankute ba ngeen nekkee jamais mu ne inni amantu bi rabbikum fasma fasmauni xam leen ne man kat da déggee lii ci man mooy lan sama jébbalukaay du fenn du seen yàlla yi du seen système bi du seen manipulation ba ngeen di def fa ma jébbalu kat mooy fa yàlla mooy inni amantu bi rabbikum waaw sama jébbalukaay mooy fa seen borom mooy fa sama borom jébbalu naa sama lépp sama borom waaw nangeen ngeen déggee lii ci man déglu leen la ma leen bëgg a jox comme testament mooy jébbalu naa sama lépp fa yàlla allahu akbar ñu daal di rey député de peuple bi ak façon buñ ko reyee dañ kaa faat rek ruux bi daal di wadd yàlla ne malaaka yi ne dem leen jël ruuxu sama jaam bi ngeen tàbbil ko këru xéewal ba ñu naan arjana donte arjana la tudd ci baat bi keroog bés penc fa dugg waaye ca barzak ah ñu ngi koy dundal dund bi nga xamante ni xéewal yaa ngi jóge ko ca arjan léegi nag ba ruuxu député de bi waddee ñu daldi ko faat qiila duxulul janna ca saasi yalla ne malakay yi na ngeen jël ruuxu sama jaam bi ngeen tàbbil ko këru xéewal waaw ci xéewal ya nekk fa man yaa layt qaala yaa layta qawmi yaalamuun député di bi daldi wax ne qaal mu ne yaa leyta qawmi yaalamuun aka neexoon sama xeet ñama faat ñu xamoon bi ma gafarali bi ma gafarali la ma yàlla suturaal la ma yàlla jéggal rabbi waj'alni min al mukramin yàlla boole na ma ci jaamam yu tedd ñi kon député di peuple bi gannaaw bu ko askan bi bundu xatalee ba ñu faat kanam yàlla daldi wax malaaka yi ne leen jël leen ruuxu sama jaam bi ngeen dugal ko ci xéewal yi mu nekk ci xéewal yi muy bànneexu ñu ne keroog waa ji daf ne yàlla nanga nga dekkil bés pénc na taxawal bés pénc ngir sama gaay ya ma faat ñu xam jéggal bi nga ma jéggal suturaal bi nga ma suturaal xéewal ba nga ma teeroo ak taraanga bi nga ma jagleel ak sa jaam yu tedd ya nga ma booleel yàlla waaye waaye nanga dekkil bés pénc ba sama gaay yi xam taraanga bi nga ma tiral teraanga bi nga ma teral ak a neexoon sama gaay xam ko waaye yàlla dëkkalal bés penc waaye ba sama noonu xam li nga ma li nga ma beral loxo mu ne yàlla ne waaj ne déedéet lii noppale ko kaay la la ma la waajaloon danga fi dallu noppaleku nekkal ci lii ba keroog bés penc di taxaw bu bés penc taxawee nag ci laa lay defal say mébét sa gaañi nekkee fee nga nekk fii ci say xéewal mu ne leen député de peuple bi ngeen faatoon ci seen jamono moo nekk ni rabbi waj'alni min al mukramin nga ne sa gaay ne yàllaa ngi nii teral na ma boole na mag jaamam yu tedd ñi kon lii lenn la ci déroulement ba député di peuple bi déroulé ci jamonoom ku dem yaasin ca suratu yaasin gannaaw bi nga jeexalee paas bu digg doomu bi beneen paas balay féete à gauche dinga nga gis wadrib lahum masalan ashaabal qaryatin is jaa ahal mursaluuna id arsalnaa ilayhim usnayni fa kaddabuuhuma fa azzasnaa bi thaalisin fa qaaluu innaa ilaykum mursaluun qaaluu maa antum illaa basharun mislunaa wa maa anzala arrahmaanu min shay'in in antum illaa takdibuun qaaluu rabbunaa yaclamu innaa ilaykum la mursaluun wa maa calaynaa illa albalaagu almubiin qaaluu inna tatayarnaa bikum la in lam tantahu la narjumannakum wala yamasannakum minna cadaabun alim qaaluu taa'irukum maakum a in dukirtum bal antum qawmun mushrifun wa jaa min aqsa almadinati rajulun yas'aa qaala yaa qawmi ittabi'u almursalin ittabi'u man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun wa maa liya laa a'budu alladi fatarani wa ilayhi turjaun a attaxidu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bidurrin laa tugni anni shafaatuhum shay'an wala yunqidun inni idan la fi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'uun qiila adxulul jannata qaala yaa liita qawmi yaclamuun bimaa gafara li rabbi wajcalani min almukramiin sadaqallahu alazim mbokk yi lii aaya la ba jaar ci député des peuples ba jaaroon diggante askan bi ak yenente ba yàlla yónni ci xeet ba mu doon dund su ko defee képp ku dem xool ca suratu yaasin ak tradition en français bi wala tafsir bi di nga fekk euh, député ni mu war a taxawee ci askanam ñu di ko fàttali mbokk yi nga xamante ne ñoo fas yéene dugg ci joŋante député ba ñu war a samp ci pencum ndaw réew mi waaye ñu yëkkati kàddu kilifa ba yàlla nattu mu taxawee taxawaayu njiitu réew keroog ba mu doon laaye biir askanu Sénégal ne mu ngi ñaan ñëpp ñu tàmbalee campagne bi ci bismillahi rahmaani rahim ñu dugg ci ci alhamdulilah rabbil alamin waaye ñu génn ci wasalaamun ala man ittaba jàmm dong lal commencement beeg ci digg beeg ci njeexintal ba sénégalais yi jox pancum pincum ndaw réew mi ñañu soob ndax ñoom ñooy yore doole bi ñoo yore seeni kart waaye lépp mu tegu ci xam-xam tegu ci yar ak teggin zéro violence ndax yàq xaju fi te yàq baaxul ci kaw suuf mbokk yi lii lenn la leneen réew mi FM 97 point 5 andil ci waxtaanu fajar ba ngeen di ànd ak ñun ci waxtu wi lu jub si kàddu gi ñu santee ko yàlla lu dëng ci kàddu gi nag ñu di ko jéggalu mata di doomu aadama rek la ñu ngi ñaan yàlla suñu borom di ko ne allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir